ngeen ngeen wàcc tàng na jër fii tàng na jër lu ko waral douze virgule sept hectares douze hectares ci ginnaaw amee ñu bëgg ko saasaaxe ñu bëgg ko saasaaxe jaay dèjà rek am na benn engrais boo xam ne trois hectares la trois hectares nee nañu muy wax bu Kër Samba Kane day ko jox def naa yéen ñi ci armée yëpp gis ngeen àndaal bu rëy rëy nee yëpp les maires moom lañ ko jox lu tax ñu jox ko gën kii dañ ko ko joxe ku ma ko jox ñu soxla armée yi fees ñu yokk ñu ndokkee bu baax kuréel yi neen ndokkee di dañ leen dugg ca kuréel boobu wala fi dañ wax ni besum kanam yi dafay fajal boppam yéen yéen a juddoo Pikine màggee Pikine yaroo Pikine maire bi def lii juddoowul Pikine yaroowul Pikine màggewul Pikine tey jii ay wajuróom bu ñu nekkoon fii ci armée bi dina bàyyi xel bi yokk armée xam ngeen ni xew ci armée yi ñaaw na lool sulli nit yàq suulaam def la sulli nit jël néew teg ci kaw armée yi fes na dell dañuy tegale néew bi de kenn amatul foofu ñu am suuf bu yaatu. jàng xalaatu nit ñi ko doon loolu yéen ndaw ñi yéen a bu mën a régler waaw yéen a ko mën a régler kon yéen lañu yaakaar ngir ngeen fajal ñu suñu gàcce yéen ndaw ñi bu leen dem fenn toolee fi ngeen xeex bu jaree ngeen bu jaree ngeen def association ngeen def association bàyyi leen seetaan bi ab jullit bu seetaan comme sama yoon nekku ci ab jullit bu ko def yonte bi nee na mbiri jullit yi ku mu yitteelu ku mu intéressé wul bokkuloo ci yéen lii xew France wala leen intéressé wala ngeen ko gëstu xam ci ñu dégg leen ci lii xew Guinée wala leen intéressé ngeen xam ko saytu ko ñu dégg leen ci lii xew di was ñu bëgg a jaay suñu suuf si suuf suñu war a yokk àndal yi yéen ñëpp ngeen ko gëstu xam ko taxaw ci ba loolu ma jàpp li ñu ci yéen mooy ngeen nekk ay borom xam-xam ndaw dafa am boo jàng bëri xam-xam ndaw dafa jàng bëri xam-xam ma Sénégal ku moo ko benn téere rek def sa bopp oustaz kaala ku moo ko benn téere rek kaala nekk ci rajo yi nekk ci télé di wax te damay wax xam-xam moo ci dara commencé di kontaan suñu mag ñi te téere yooyu ñu jàng yëpp di leen naan nañ ko muy yàgg ba jàng ay junee téere rek kaaral rek maanaam oustaz soo déggee arab tuuti nag commencé nag làmb arab waaw yaa nii yaa nii yaa nii yaa rek ba ñu de waaye xeeti xam-xam yëpp moo xam info informatique la moo xam génie bi la moo xam chimie la ndaw dafay jàng yu bëri xam-xam ci xam-xam ngeen mën a jaamaa ndox noonu bon yooyu réew yu mel ni France ci xam-xam ngeen mën a jaam jaamaa ñoom ci informatique ci science ci technologie ngeen di mën a rivaliser ñoom ba ñu wet jigéen rek jigéen rek ndaw ñooñu bu ñu ñëwee bi la bi ñu seet ci yéen daal mooy ngay sopp seen naa Muhammad di maam yu baax yi def seet maam yu baax yépp la nga am ñu ko amee ci sopp Rasulullah a maam borom Tuuba muy maam Xaji Maalik muy Cheikh al Islam maam yépp lu ñu am yépp ci tur ci daraja ci xewal ñu ngi ko jëlee ci sopp Seydina Muhammad ci liggéeyu Rasulullah yéen ba leen mënulee def seen maam yi def ci xam-xam ci biir waaye sopp leen ko boog sopp ngeen ñaan yàlla bu sopp loo leen Seydina Muhammad ngeen sopp ko sopp Seydina Muhammad mooy ngay defee sa daane bàyyi ay tere loolu lay tekki sopp alhamdulilah bu ñu bu ñu bu ñu Muhammad nga jooy déedéet di bëgg wax mu wax ba def nga jëfe ko lépp lu mu tere nga bàyyi yéen ndaw surtout yéen ndaw ñi nekk ñu banlieue bi jota daal ngeen door ñu gëm yàlla ci seen xol waaye ñu gëm yàlla ci seen xeet waaye ñu gëm yàlla ci seen i jëf muy feeñ ci seen wax seen i jëf ak seen doom yéen yéen suñu yaakaar tey yéen suñu yaakaar yéen a dina ci yaakaar yéen réew yaakaar yéen yéen a war a exemple royukaay pour ëllëg fartumul amal il faut ngeen bàyyi seen bopp ci loolu ci xam-xam ci nagaw sol ci nagaw liggéey bàyyi seetaan bi sama yoon nekk ci bàyyi te loolu penc mi yéen a ko defar mairie bi wës bi yéen a ko war a def defar ko yéen ñi juddoo Pikine màggee Pikine fooyee Pikine ko jaaree ci yoon yéen ñi seen moytu tëdd ci affaire yi bu leen joxee mairie bi daañu ko jaaree ci yoon. jaaree ñu def ko maire xam ne ni koñ mooy def ko waaye dañuy wax ni dëgg les maires importés la dafa war a jeex loolu décentralisation war nañu passé foofu maire importé kenn ku nekk fa mu dafa dem te la fay la fa la fa maire yéen doomu Pikine yéen a war a topp tool maire bi di jënd sëñ bi daal ma xam xel ci juróom yii deewa ñu ñëw bés bu jot ñu def armée la suuf fa nit bés dina ñëw ñu jël ñu suul ñu foofu noonu ñu def nit ñi ñu suul ñu wax ñu ginnaaw kon nañu bàyyi xel ci dund bi bàyyi xel ci seen wér wéra dégg ñëw soo yeewoon ak sa ñaari tànk ci dara metti wu la nga jóg bàyyi xel sa borom na naafte yi bëri da liggéey bi bëri da tudd yàlla bi bëri da dox mbokk gi bés dina ñëw dootu ko mën a ñëw fu nga tëdd lépp ñu la koy defal foofu sa jot jote léegi ñëw yi am ci kër gi paa bi moo la yor fayoo ndox fayoo courant paa ngay joxe dépense am nga jot kon ni jël koom nag demal nga dem jàngi alquran demal nga dem jàngi sa diine demal nga liggéey ni yàcc yaakaar rek paa bi la yóbbu ndékki kan léeg-léeg sax nga takk sa jabar yi ci kër yi paa bi boo yor na yor sa jabar yor say doom loolu nag ndaw bu nekk ba nga am gàcce gàcce loolu nag war nga sutteeku nag foo mën di dem nga def sa doom tubaab yi dañuy jubali yëpp ku ci am 18 ans doon mën a lott soo ko jur yor ku am 18 ans da ngay génn nag moo xam ne bu yëpp moo xam da ngay taxawal sa benn mooy naan ñu sa kër sax da ngay dem da ngay génn seen kër da ko taxawal sa kër ñu ne da ngay toog fii ba sax si ba béykat yi commencé naqari na jamono yi commencé neexee bu pasar pasaree xaalis xaalis bi amal loo denc dépense oo lenn li dimbale say bopp ci lenn li nga am loo làkk ndax woo ma dégg ñëw woo am na waaye woo ma dégg ñëw bopp bi daal rawatina ndaw góorgóorlu leen réew bii réew bii yéen a koy defar tubaab yi ak chinois yi ñu jóge fële ñoo tabaxal diine ji yéen a koy téye yéen a koy fekk yéen a koy sàmm tubaab yeeg chinois yi ñu jóge ñëw fële fekkal suñu diine te boo leen ko yëgee rek boo leen ko yëgul li xew France fii la dem si gis nga caricature yooyu ñu wax dañu def brochure te saa dafa jëm France yëpp bu ñu saa demee dina dugg fii Sénégal loolu yéen a koy fekk yéen a ci jàng yéen a def jàng ci loolu. yàlla di a ci lépp dana yàlla dugal ñu fay dañu teg di leen xelal loolu da ngeen a bàyyi seen yi dem fekk si leen iblis buñ ko mënee buñ ko mënee mooy buñ ne mooy ci seen yi